man la elage mbegi job euh borom mam dox TV comme niko gaay di wax bon di remercier bu baax a baax waa Kondiak parce que vraiment euh liñu def dañuy delo jukal xamni man bokkee fulu kon jakk la fala juddo fala yaro yaroo fubal naa fa kadé mak ñi ngay gis ni ñi suñu ay rak la ñoo top suñu ginaaw man ak mam Racine nii ñoo ndo kade ba ñoo yéegandoo senior kon man kon jakk fala dekk fala yaro fala juddo kon buma delo jukal bi vraiment day wone ni man fofu la bokku bu baax baax di sante bu baax aussi ki nga xamanteni mom lañu la ñu parrainé moom la ñu defal tournoi bi di Cheikh Niang modi di suñu grand ñun bi ñuy qualifié ñaari final mom mo nekkon suñu entraîneur mok Cheikh Diatta kon vraiment bu ma delo waté ni ma euh, yow yaay euh, yow yaay parrain bi sérieusement aussi té vraiment ñew bima fi ñew parce que gis na ni presse locale bi nga xam dañuy and ak man di liggéey depuis ce matin jusqu'à présent ñi ngi sama kër fa lañ agné fa lañ défé lepp and ak man ñew gungé ma ñew fi di sante sama grand frère yi ma andal ak sama copain yi nga xam ñoma gungé gunge si vraiment di bég bu baaxa baaxa baax ci li nga xam te ni moom lañ ma jox du sama jëm du sama dayo mais dañu xamni ko ñaka la bok motax vraiment ñu yëkëti ko jox mako mu ma ci lool di wax ni nak sérieusement parler man lañ bari neel demi finale bi mais finale bi aussi du téré damay ñëw and ko ak ñom xamni lepp ko ñaka la quoi di sante bu baax di gërëm bu baaxa baaxa baax ñi nga xamanteni ñoy ñooy ko koñ jàkka yëpp nag ñi organiser tournoi bi ñaari équipe yi di wax ni amul fenn fuma ci far donte la man premier match bi sax ci vétéran solo na mayo mais nak tay faralu ma kenn damay ñëw rek que le meilleur gagne quoi di ñaan yalla nak ñu jouer ko ci fair play parce que bi may doga ñëw fi dama defon ben reportage ñu wax ni bu amé leneen lu dul foo ak and doon ben rek mu yàqu kon nañu fexé ba lu ci mënd di am nañu bokk nday bokk bay def ko ko ci fair play demi final bi jeex bu final bi ñëwé ñu final ko ci jamm ak salam baña am ben problème loolu lay ñaan di ñaan ñi yàlla yépp affaire yi jaar yoon ñu commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim agalé ko ci alhamdulilahi rabbil alamin mais particulièrement nak ma ngi sante presse locale bi nga xam tay sama kër lañu yendu and ak man ñëw parce que xam nañ ñoo bokk koor bi di wa waa Kondiaka di sante ñëpp ma ngi leen sante bax di leen gërëm jërë waaw ñu gis ci ay ancien joueur yo xamanteni tay gis nañu ben cohésion bu ñu amal ci diggante ne ñoom ñoo actif ban message moom ngay joxe pour que ñu gën a mën a promouvoir lu loolu day indi wayu yuusul wu ma ni football yaa mën a boole ne am na loo xam football rek ko mën tey boo gisee vétéran yi lii leen gars yi may mooy non fu ñu gis jour boo xamante ni vétéran la bu yàgg mën nañ ko jëlee indi ko loolu day boole booy aussi seen équipe boo ko gisee sélection la am na ñoo xam sax ñu ngi ci football bokkuñu ko njàkk loolu day wane ni football rek moo mën a boole football bu mën ta boole jaratu ko parce que war ta tàqale li nga xamante ni moom lañ fi doon wax kon vraiment liñ objectif biñ ci bëggoon yalla def na atteindre na ko kon ñi ngi sante ñepp di gërëm ñepp wax dëgg yalla kon jaaka nga am fi benn souvenir ñu la daan woowee euh lan la lay def wa non manam football mom buñ ko waxé bo déggé turu bébéto kenn la ci adina budul budul budul sama turandoo ba nek Brésil muy man ah, man bu ma daan football ay jamono bo ma saana dégg bébéto man kessa la bu ma saana dugg tur wo dégg ñu doon bébéto El Hadj Nabi Diop loolu moom na leer nga nekk communicateur traditionnel bo xamanteni dañ lay déglu fu bëri tey euh, footballu Tivaouane taga témbé parce que amuñu stade buñ ko pratique dañuy ñaan yàlla monsieur maire de la ville de Tivaouane Demba Diop Sy mu àggaleel ñu suñu stade bi jox ñu ko parce que nag très sérieusement gis nañ fi ay nouveau talent li la war xamal mooy xoola ren cent mu bare quartier boo def am na cent pour cent jot suñu stade bu ñu jotoon suñu euh, stade bi ñu àggale ci championnat bi bu déwee ñu mën a fubal li nga xam mooy nawetaan yi vraiment ñu ngi koy ñaan ñaan loolu mu dimbali ñu ci parce que vraiment gars yi